ay jikkoom ak jaar-jaaram ngir réew mi jariñoo ko nu waaj nag jëm ci màggal goog yi nga xam ne moom la ñu dëgmal muy ñaar fukki fan ak ñett ci weeru sowaal euh, jataay yooyu nu baaxoo am ak yéen ngir jàngat jikkooy sëriñ Abdul Ahad ak jaar-jaaram tax nu daa dem ci kilifa yi nga xam ne jonjoowoon woon ak moom ci ak bokk ci jaxasoo ñu fàttali nu sëriñ Abdul Ahad nu man cee nafar man cee jël ay bind ngir tabax ci sunu dunduk àdduna waajal ci it sunu ëllëg tey nu ñëw ci kër goo xam ne mën na noo wax ne kër sëriñ Abdul Ahad la ndax genn kër la muy kër sëriñ Souhaïbou ku tudd sëriñ bu tudd soxna Mariama tudd sëriñ Abdul Ahad muy genn kër waaye itam nag ñoom ñi nga xam ne ñooy waa kër sëriñ Souhaïbou li ñuy bokk bokk ak sëriñ Abdou dañoo jaay njureel googu yi jënd ko ak taalube ñoom ñëpp sëriñ Souhaïbou dale na jébbal sëriñ Abdou ci mbooleem luñ daan def ci kër gi ak yu mën a doon sëriñ Abdou moo ko daan taxawee tey nag ñu ñëw ci kenn ñu ñëw ci kenn ci njaboot gi muy sëriñ fallu Mbacké mi nga xam ne xam nañ ko ci yar ak jàngale euh, ak yeete ak teg nit ñi ci yoon yàlla na ko suñu borom dolli ak wér kàttan ba yéene yi nga xam ne am na ko ci liggéeyal ko sëriñ bi ci toolub lislaam ci yarak jàngale mu am ci ngërëmam euh, nu ñëw nag ci sëriñ Fallou waaye bala nu koo jox danoo bëgg ubbee xasida goo xam ne euh, dana ko fee fekk muy xasida gu yéeme goo xam ne sëriñ Abdul Ahad sëriñ ku tedd ki bi mu koy def ci weer wi la ko defoon tollo itam at mi nga xam ne ci la sëriñ Abdul feeñe ci biir xasida gi it am ay junj yu am solo yoo xam ne mi ngi ci biir nu bëgg a ubbee xasida googu barkeeloo ko ci sëriñ Saalihu mi nga xam ne euh, doomi sëriñ Fallu la waaye itam di ku murite ku bëgg lu baax tey gëstu ci yoon wi kon xasida googu la nu bëgg a ubbee door a tàbbi ci waxtaan wi basharani llahu tabaraka wa taala bi sawaali aami balsas sahida li muxnin an ilkayfiya bi kawnihi li abadan fi nniya waajahtuhu wa huwa xayru waali wali qadal xaajaati fi sawaali wajjaha shahru ramadaana wa rabi al awwalul munaa ilayya lal mabi ashkuru rabbi kulla shahrin wa sanaa ومالكي لا تعتريه من سنة أشكر ربي كل شهر وسنة ومالكي لا تعتريه من سنة له خطابي بالكتاب والحلال وما أتاب لي من خير ضلال علمتني بقل هو الله أحد بأنك الذي كفاني من جهاد إليك سكري وحمدي سرمدا يا خير مشكور بخط حمدا mahawta an taqsidani lmafasidu fi ramadana balsasin walxaasidu baarakta li fi umri ya baaqi wa qutta li mawaahiba subbaaqi لوجهك الكريم خذ ما ساء لخير ذاتي ومن أساء سقيتني أطعمتني يا نافع يا من به لي تنتهي المنافع shakartum ughniyan anil kayfiya wa kaana li fi amali wan niya shakartum ughniyan anil kayfiya wa kaana li fi amali wan niya subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin kon mbokk yi nu ànd ak yéen liggéey bi incha allah euh, fas yéene fàttaliku sëriñ Abdul Ahad ci ay jikkoom ci aw meloom sëriñ bi noo ngi lay nuyu di la ziyaara euh, di jégglu jataay bi ak jota diggeeg lépp rek waaye mu bokk ci liggéey bi mu bëgg rek kàddu yi fàttaliku yoo xam ne sa wayjur wa sa sëriñ ba sa soppi ba euh, yàlla def na Eh, am na fu ngeen jaar mel na ni bi bi la Serigne bu jébbalee Serigne Saalix te dem ba Serigne Saalix soxla la dafa jaaraat ci moom mu ne ko na dem Serigne Abdoul Ahad Serigne Ahad daal di la koy eh, mu mu jox la ko muy liggéey boobu nga ko doon liggéeyal eh, yàlla yi defal na la tawféex yi moo la joxu tur ci kii boppam alhamdulilah ni ñaan suñu borom gën wéral te gën a yàggal tabarakallah euh, nu bëggoon rek ay kàddu yoo xam ne fàttaliku ko fàttaliku nga ci moom euh, xam naa tàmbalee ci diggam ak Serigne Souhaïbou loolu ci fàttaliku loo xam ne danañ ci mën a nu nu maanaam nu mu doon dundeek Serigne Souhaïbou ak seenu jaxasoo nu mu demee woon ci li nga fekkee. tubaarkàlla tubaarkàlla xanaa ma def ci benn tamxiit rek lu ma léegi laa ko xalaat nii rek sama xel te xam naa lu gàtt lay doon. bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu wa sallama ala sayidina mawlana muhammadin xayri xalqi wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi wa sallama taslima ñu ngi am bu baax a baax a baax ci dalal leen fii ngir waxtaane nit ku màgg ki ngeen di waxtaane mel na sunu borom nag kum nara liggéey loo ëllëg daf lay waajal kon nun ñëpp gis nañ ñi ko fekk ñi ko fekkiwul xam nañ li ko sun borom doon liggéeyloo ak li ko te awale ko ci loxol sëñ Touba muy ay yeesalaat yi ñuy wax ay tëj diidaat ak tasfiyaat tajdiid mooy luñ bàyyi woon ba defe ne bokkatu ci ñu ñëw yeesalaat ko ba nit ñëpp xam ne ci la bokk yeesalaat it mooy sellalaat it mooy loo xam ne lii boolewuñ ko ci woon ñu sellal ko ba nit ñëpp xam ko loolu yaakaar naa yéen ñëpp ñu ko fekke ñi ko fekkul yëpp xam nañ loolu mu ne lool nag dafay mel ne bala ko suñ boroma def ci nit def loo nit daf koy waajal waajal ga nag ci yu bare bare bare lay bokk lay tàmbalee waaye bokk na ca askan wu baax askan wu baax woo xam ne da bu ñëwee moom dana mën a dékku loolu ak yar bu baax ak askan woo xam ne sunu boroom waajal na ko waajal yéen woo xam ne loo xam ca askan wa rek lu mu yàgg yàgg yàgg ci nit ñu baax la ñuy bokk moom la imaamul Busayri di wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lam tasal fii damaa'iril kawni tuxtaaru laka al ummahaatu wal abaau maa malat fatratun min ar rusli illaa basarat bika al anbiyaau Ah. li nga xam ne nag sëriñ bi ñuy waxtaanee moom la làmboo ci ay jikko yu mat yooyu yëpp il faut que sunu boroom waajal ko ko ci ay maamam ak i waaye dag koy waajalit cim xel ndax loo bokk bokk bokk fenn te baax te ñu war laa liggéeyloo ëllëg danga ngaa war a amum xel. waaye daf koy waajalit ci taskira muy doon koo xam ne ki lum xam dutu ko fàtteeti loolu it ci la ndax mën naa xam fàtte waaye loolu yéen ñëpp gis ngeen yaakaar naa bu ngeen <laughs> ñu ko ci fekk fekk nañ ko ñu ko ci fekkul it waaw bàyyi nañ ci xel kon day am xel mu lëw lëw wu yaatu woo xam ne wii moom lay mën a xam ba mën a xam li muy defaraat ak li muy yeesalaat waaye day am xel moo xam ne it mu lëw lay doon moo xam ne moo koy yeesalal moo koy leeralal yoon wi ci saahir ak ci baatin loola daa ngeen dégg ñu ne nee nañ bu nit ñëwee ci moom di ko wax ay wax liy wax ci nopp ndeyjoor bi naan ko li muy wax dëgg la wala li muy wax du dëgg day defe ne ñëpp a ko dégg daanaa dégg ñu di ko wax hmm? loolu nag fadlullaahi la yàlla moo koy jagleel ku ko neex ci ak coobareem hmm? ndax euh, boo seetee ñu baax ñépp war leen a liggéeyloo di ñuy mën a dékku dékku mën a jaxasoo ndax loolu bu amul liñ bëgg du am bu fekkee mënoo jaxasoo nit ñi ah, doo leen mën a yéwénal hmm? bu fekkee mënoo dékku lori nit ñi it ak seen i bang-bang doo leen mën a liggéeyloo yooyu yëpp daa ay yëf la yu jaxasoo yoo xam ne yii hmm. bu ko defee nag loolu fadlullahi yaxtasu bihi man yasa min ibaadihi nga ne ngëneelul yàlla moom yàlla xeet ku ko neex rek mu jox ko kon moo ko tànnal waajuram wi sës ci moom ñaari waajur yi sës ci moom ak ye yu sore hmm? te loolu buñ duggee ci e, siira bi dañuy tànn ay waajuram dafa am lu mu waxoon Ceerno hmm? wutal ma ku mel nangam ak nangam ak nangam ak nangam Hmm? kon loola dafa dëppoo ak tànnuk yàlla ba mu koy wutit mënoon na ko am mënoon na ko bañ am waaye da koo am hmm? <laughs> muy tawfeex bi hmm? ba mu jógee di ko wuti rek moo it xelam dane ko foofu de kër muudu asta dong laa ko xalaate ne foofu laa ko mën a amee mënoon naa xalaat feneen mënoon naa gis feneen loola di ngeen loo xam ne yàlla ko defal waaye day am loo xam ne lii digganteem ak sunu borom la waaye day am loo xam ne lii da koy awale nag ci ay ay awukaay yoo xam ne yi moo koy dimbali bam loola mat li muy am am am daf koy awale ci ay awal awal awukaay yoo xam ne yi léeg mu metti léeg-léeg mu kii ba ca jëkk mooy bi sëñ bi bi sëñ bi jógee rek hmm, muy gone Hmm? booba fukki at ak ñeent lay waraan hmm? wala du ko ëpp waaye magam cheikh mouhamadul moustapha ku ne xam na diggante mën ak moom mu boole ko ci ñi muy diisool boole ko ci ñi muy waxandal te cheikh moustapha ku ne xam na am xelam ak jaar-jaaram hmm? loolu it baneen tawfeex la mënoon na ko mënoon naa ëpp ay at foofu sax te am dara daraja boobu hmm? waaye nag loolu dafa am lu ko luy niit ca kanam loo xam ne lii moom la ko yàlla bëgg a liggéeyloo loola nag il faut que mu awale ko nag ci awukaay yooyu nga xam ne mooy tax bu ëllëg si lu ñëw dana ko mën a dégg hmm? mbooloo mu bari la sëñ Modou Moustapha wutoon yu jaxasoo yi ay sëriñ lañ yi ay ceddu lañ yi ay yu bokk ci sëriñ bi lañ yëpp ci njiitul Cheikh Mouhamadou Basir waaye moom moomu daa bokkoon ca bokkutoon ca mag ña waaye ca gone yi daan yim daan diisool ca la bokk mm-hmm. waaye bi fi Cheikh Moustapha jóge it gis nañ ni mel ak Cheikh Mouhamadul waaye gis nañ ni mel ak Baara gis nañ ni mel ak sëñ Abdou Mbacke gis nañ ni mel Cheikh Mouhamadul Basir ak ñi ci des ñëpp ñi ci des moom ay rakkam lañ hmm? waaye gis nañ seen diggante ni mu deme hmm. kon loolu foofu mu aw fépp suñ borom dafa am lu mu ko doon waajal lu mu koy liggéeyloo loo xam ne lii bu yoon wi demee dema dema dem ba am juróom fukki at boo fekk ne yoon wi am na juróom fukki at ak ëpp na ko sax dana am lum liggéey loo xam ne lii il faut mu am waajtaay yoo xam ne day fekk moom moom mu waajtaayoo ko mooy tax liggéey boobu ma a mat waaw tam it boobu rek laa ci doon def <laughs> ci bu gàtta gàtta gàtt waaw léegi ci des nag xam naa loo ci lu ma ci la gën leeral rek lu ma ci xam <laughs> macha allah jërëjëf Mbacke tam hit bi kat mënutoon a ñàkk waaw ah, dañu dañ ca nafarewaat sax sëñ Abdou Lahad ngëneelal yàlla ak waajtaay bi nga xam ne faw ku ñëw war a liggéeyal yàlla suñu borom dana am eh, ay waajtaay yu mu la waajal am ay ngëneel yu mu làmboo yooyu yëpp nga wan ñu ko ci anam yu leer yoo xam ne ku dund sëñ Abdou Lahad da nga ko xam tabaarakallah mënutoon a ñàkk waaw xam naa kon dañuy ñëw rek ci diggam ak Serigne Chouaïbou ak eh, eh, taxawaayam ci jàppale Serigne Souhaïbou bu ci njàngam daara ji ni mu ko ko fonkle woon. Mm-hmm. Ah, ak diggam ak njabootuk Serigne Souhaïbou bi. Mm-hmm. door ñëw nag ci xilaafa gi li nga ci mm-hmm. dund te fekk ko ci. waaw diggante mag eh, dafa mel ne moom mënuñu ko wax te waxuñu sëñ Souhaïbou mënuñoo wax sëñ Souhaïbou ak sëñ Abdou Latif te waxuñu sëñ Saliou ak sëñ Abdou Samad ndax dañoo bokk benn yarukaay. te yar dafa am solo lool ci nit benn naanukaay bi nga xam ne mooy sëñam am sëtu jaxate sëñ bi def ci moom lam def ci moom wóolu ko fobaat leen ne ko teg naa ko ci sa loxo ngir la ma defoon ci yow nga mën koo def ci ñoom ndax amatum ak jotam looloo tax du ñoo mën a waxtaan ñoom ndax bokk jata jataay bi moom bokkutoon ñi nekk ndaam ñoom ñett ñooñu ñoom ñëpp ci sëñ Abdou Lahad lañ nekkoon eh, ay nit nag buñ bokkee lépp bokk benn naanukaay di bokk di tëdd di yeewoondoo di àndandoo di jàng lu leen sëñ Abdou Lahad di wax ñoom la koy waxandoo daanaka boo xamee kenn rek ci ñoom xam nga ka ca des li ci des nag jëmm yi mën naa wuute température beeg yëngu yooyu waaye lépp benn la bëgg gi sëñ Tuubaa bëgg gi diine bëgg fonk alxuraan lépp benn la koo ci waxtaane rek day mel ne waxtaanee nga ka ci des waaye nag comme léegi ma laaj digganteem ak sëñ Sohaybu dafa mel ne day lenn sëñ Suwayb bi wax na ma ci làmmiñam ne ma fekk dafa am lu ma doon lijjanti ci moom mu ni ma ah man kat doonuma ci sama bopp dara eh, sama bopp sax bala ma ma la cee mën a wax dara de damaa gis sëñ Abdu te booba ci mujj gila la soriwu ko daal hmm. eh, soriwu lay quatre-vingt quatre-vingt-trois Ah, daa demal sëñ Abdou kat ba ma koy def kilifa yàlla ma xirtal ma def ko ci kilifa waaye ñoo bokk benn lal bu ñuy tëdd kon xam nga ne booba yàgg na hmm? musta am ak moom musta am ci ak njabootam lenn lu muy tànn walla lu muy bëgg hmm? mbirum boppam sax amul lum cee tànn wala lum cee hmm? eh, lu kii la lu yaatu la eh, suñ boroom nag déggale leen ndax danga nga bokk ak nit ba noppi seenu déggoo du deme noonu waaye nag yàlla da leen a déggale voilà nag liggéeyu yàlla la ak sëriñ bi ak barab biñ biñ yaroo loolu dafa tax lu am solo la moo tax damay wax ne ñi bokk sëriñ bi ci nun ñii rek ñi ci bokk benn yarwaay gis naa ci ñoom ak dégg goo xam ne ak yàqu du ca am hmm? toujours dama ko daan wax hmm, dama ci daan joxe misaal ci ñu yaroo woon kër sëñ Souhaïbou ci doomi mbokkam yi mën naa cee jël waa kër sëñ Abdou Lahad waa kër sëñ Abdou waa kër sëñ Saliou eh, ak sët yi ñi ci des ak sun doomi sun bàjjan yi waa kër soxna May waa kër soxna Mbeen ñoo ñëpp ñi fi yaroondoo woon ci benn barab luñ gëj a gëj a gëj gise buñ gisee day mel ne démb lañ mujj a gise loolu donc ko cee seddu kon moom itam jataay boobee ñu jataayoo woon kër sëñam sëtu dafa am lu mu def ci yéen ci ñoom baneen ba ca topp nag mu déggal ko te xam ne mooy kilifaam lépp lu muy def ci ndigalam la koy defee lu muy bàyyi it ci ndigalam la koy bàyyee loolu moom nun ñi nekkoon di ay mag ñëpp seere woon nañ loolu naka jekk ndaw yi da daan baagante di dem ak dikk hmm? di munta ñëwit di fi géej téewul ak umpale du am seen diggante waaw wallaal mu taxawoo ko nag ci lépp nag ci lépp mu taxawoo ko ci lépp ko ci lépp ci biir njabootam li nga xam ne moom yàlla nattoo woon na ko munta jaxasoo ak nit ñi ngir ab liggéeyam lépp mu bàyyee ko lam cay def mu di ko ca yóbbaale waaw ko ca daje yeeg kii yeeg yëpp moom dafa doyloo woon sëñ bi ci yooyu mbir moom féete ko fim ko féete waaw loolu daal laa ci seetlu hmm. tabaarakallah jërëjëf Mbacké macha allah ànd bu rafet ba boo xam ne mënees na cee jàngal lépp rek ci e, déggal sa kilifa nangul ko te yàlla tax waaye itam e, ki topp ci yow itam nga e, cëral ko jàppale ko ci lépp loolu la lislaam jàngale waaye seenu jagle nag ci sëriñ bi nga xam ne seen mbirum bopp la loolu yéen ñoomu neen ñoo ko seq <laughs> tabaarakallah Euh, ku mel noonu nag nga xam ne yàlla def na mu dem ba yilif yoon wi doon xalifa ci jamono bu jafe boo xam ne ci la ci jote waaye yàlla defal ko féex yi mu tollu ci ci ci digg kàttanam am yum fi fekk yoo xam ne euh, ci dëkk bi mu war a setal dëkk bi ci taqam war ko leeral ni ko sëñ bi ñaane fexe bi nit ñi tege ci yoon euh, taxawaayam ci xilaafam googu ni mu def ba réussir ko ku nekk ak lañ la liggéeyloo waaye moom bi mu ñëwee ñëpp xam nañ ne am na fi liggéey bu rëy booba indépendance weesu na nit ñaa ngi tàmbali di ko ci ay am-am jaxasoo bi bari na ñi jóge yeneen dëkk ñëw di sanc si Touba bari yëf yi di yokk loolu nag day day indiwaale ay ay jikko yoo xam ne yi bokku bokku ñëw ña sancoon Touba ñu sancoon tubaa moom bu doon ñooma dong yëf yi du yaatoo nii mu yaatoo waaye yii ci duggit du ci dugg ndax ñooñu ñuñ tànnoon lañ waaye am na ñu jóge taax yi ñëw fi am ñuy jóge ca kaw ga ñëw fi ñun ñëpp nag jaxasoo ci marché bi yëngatu lépp am fi loolu nag day laaj nag ku dëgër koo xam ne ci mooy defaraat loolu delloowaat nit ñi ci fiñ war a dem hmm? yemale leen it fi ñu war a yem hmm? ku nekk xam fa nga war a yem xam la nga moom ak la nga doonul dara ak la nga bokk <laughs> li nga moom nga téye ko kenn bañ koo xëccoo yow li nga doonul dara bu ci sa yoon nekk eh, li nga bokk nga jël lañ ca am bàyyee ka ca des la mu am waaw loolu rek ba amee du am du amati benn jafe-jafe waaw foofu nag fekk dëkk bi day waar yaakaar naa ne mag ñi moom war nañ koo xam hmm? jërul ñu da naan nii la meloon nii la meloon waaye daal xam naa daal defar na fi lu rëy defar na fi lu rëy a rëy ci jikko defar na fi lu rëy ci jikko looloo taxoon mu wër bokkam yi fi nekkoon sëñ Abdul Xaadir sëñ Saaliwu sëñ Soaybu sëñ Murtala boobu ñoo fi des ak seeni jigéen ñu def benn leetar wax liñ bëgg ci dëkk bi ak liñ ci bañ ñu dem ci gouverneur bind ko ak procureur bu njaareem ñoom ñëpp ñu signé ci bind nangol ko ko boo fi nekkoon njiitu réew mi nangol ko ko mu nag mu dooraat euh, lim fii tëral la mu door fii tëral waaye nag mag mu ko fekk woon du ajul mag sax ku fekk woon loolu te am xel te xoolaat ak fi tollu toll ni dëkk bi mel danga xam ne liggéey na fi liggéey boo xam ne mooy tëj diit boobu ma doon wax hmm. mu jaddit la sëñ bi mu jaddit la hmm. mu jaddit nag du indi laay yu bees du indi sunna su bees waaye lan doon doxe nii dafa xumaat ñu dem ba fàtte ko kenn ku ne yeneen kooj ko jaxase ko jaxase ba kenn ku ne dangay ngay defe ne lii mooy li li li war a am hmm? mu naat lool nag day metti hmm? mu daal di mu mu dikk nag hmm, leeral nit ñi nag ne fii ngeen war a yam nii la war a demee nii la war a deme booba daa nga romb fii ci pencum jumaa ji gis fi loo xam ne lii lu doy waar lay doon waaye yooyu nag mu taxaw ci mu jaral ko lu ne nag ne bakkanam la ci gar xam kon lu rëy rëy lu rëy rëy waaye loolu lépp nag eh, gone yi ak yenn mag yi nga xam ne loolaa taxoon ñu bàyyi liñ daan def xam nañ njëriñ waaw kon nag yàlla na ko yàlla fayal li nga doon wax léegi it digganteem ak seen champs yi nga nettali ci bi may jël si fii ba sëñ Saliou radiyallahu taala anhu dafay ñëw digg bëccëg fekk booba ñu ngi fii ci daadee sëñ Abibu gi di jàngale waaye booba bunt bi boo fi taxawee day yeex a ubbiku ndax ka yor caabi ja day sori mën naa mu sori lool waaye sëñ bi da leen a jox moo soxna moom yi kenn ku ne mu ne la bu sa oto accès cornel ñetti corne wala cornel ñeenti corne bu ko defee bu ko bëkk néeg bi yëgee rek daal daw dikk bunt bi gaaw ubbi ko ci diggante soosee nag waa ji di dikk ñu ñëw nuyu ko daa delluwaat ci sunum njàngale daanak ñu ngi xaw a jàkkaarloo nii rek muy dégg ñuy wax wax bañ ubbil ko mu dugg ci biir bi mu duggee am na fa lu mat fanweeri minute daal di génnaat dem amaat waxtu wala fanweeri minute daal di dikkaat ah xaw ma lu bàggante nii mu dugg ci biir Abdul Majid daal di ñëw woose ma bi ma ñëwee sëñ bi nuyoog sëñ son yi ba noppi mu ne ma ah sa góor gi de yow lay jël si <laughs> bisu àllarba la dégg nga daan ne ma bi nga njëkkee gis moom sëñ Saliou waaw ma nga njëkkee gis mu ñëw fi nee na danaa dégg ca fa ngay jàngale ngay jàngale mu ñëw laaj ma ma ne ko ah ñooñu kat awma ci ñoom ab àtte sëñ Abdoulaye laa leen jébbal ñoom ñëpp dama dama bëgg a leeral loolu ak li nga ci dégg hmm? mu daal ne loolu de kon dana leer daal di génnaat dem ci sëñ Abdoulahat naka ma ko wax mu ne ko tey la àllarba waaye bu ko fa bàyyi àllarba joojee njurul laa jullee tàkkusaan dañ maa daal di patam patamee mu ñëw fi jël samay bagaas dem jullee ji foofu hmm? eh, muy ku yéeme nag waaye nag réccuwu ma loolee mu mu mu mu digle woon réccuwu ma ko hmm? jëlee naa ca euh, ngërëmul àdduna ak tey séentu naa alaaxira it ma am ko ca <laughs> waaye loolu lépp li muy tegtale rek li seen diggante ñoom ñaar ndax benn lañ euh, bi ma laajee manoon na ko ne awa ah, jëlal yóbbu waaye nag bu boobaa jébbale gëm jébbale woon ak njabootam sëñ Abdou laat ba noppi du ji dugalaat loxoom ah kon day mel kon am na lu des waaw <laughs> loolu rek laa ci bëggoon a leeraluwaat tuuti. mu ngay sant bu baax rek Mbakke. moom wax dëgg yàlla doy na sëkk bind boo xam ne àdduna bépp mën nañ ko cee jànge ci ci nangoo toppee ak nangoo joxe cër. waaw ah, ak ànd bu rafet. waaw ah, diggante boobu bu bu jiitoon alxuraan. Mhm. alxuraan dana ko tudd. Ah, ndax loolu rafet na lool macha allah. Ah, te noonu it la meloon ak Serigne Saleh ah, nee ñu ànd nañu ñëw ci barab bi moo moog Sëñ Blahat bi Sëñ génnee di ko laaj lu mu ñaan hmm. mu ne ko dafa dugg ci biir ñaanu ñaanul dara moom ah, amin la féete woon waaw <laughs> tabarakallah moom kay ci wax rek koo ci wax rek day mel ne keneen ka ca des nga wax waaw nag comme moom nga wax moom ngeen di moo leen tax a jóg loolu tax ñu wax lii ci moom waaye digganteem ak sëñ Saaliw digganteem ak sëñ Abdu Xaadir ñoom digganteem ak ñi ci des ñëpp moom koo ci wax rek day mel ne keneen ka ci des nga wax waaw loolu liggéeyu sëñ Touba la. moom de kon ku ku xanaa kàddu yu tàggatoo rek benn bi jëm ci euh, fii jamono toll nii nga xam ne moom dafa euh, doonoon sëriñ boo xam ne dafa boolee diine ak àdduna ba njiitu réew mi fi ne it daawut tàbb ci dara te ñëwut ci moom waxtaan ceeg moom. mu daan taxawit ci mbooleem soxlay nit ñi ak lu ñu war a yittewoo eh, di ko laaj ci nam anam kam eh, jaadoo waaye itam di yar nit ñi itam ci ñu tege ci yoon bañ a yàq tey nangoo liggéey ah, loolu it day mel ni ab bind la boo xam ne jamono toll na nu nu nu nafaraat ko bàyyi ci xel ni nitug diine di àndeek nitug àdduna te mooy di ko yee ak di ko jariñ ak di ko laabiire waaw mel ni diine ak àdduna dañoo ànd te mosuñu taqali ko ah, loolu yi gis nañu say responsabilité yi wet googu ak sa taxawaay ak say laabire ba fi réew mi àgg ci jàmm ak dox sa loxo nga ca biir lu ñëpp ñëpp werante wut waaw wet googu <laughs> bind la waaw la loolu nga wax a wér la waaye dafa dégg lan mooy ak xilaafa ak xilaafa dafa mat dégg hmm? xilaafa mooy kenn fi nekkoon yor lépp bàyyi fi njaboot bàyyi leen fi ñu wuutal fa keneen kooka war a yor njaboot ga na ko kooko yore woon hmm? bu boobaa nag soxna yi dañ ciy dugg góor ñi dugg ci jigéen ñi dugg ci taalibi yi dugg ci kenn ku nekk sa taxawaay la nga ca war a taxaw moom day day xam ne moom lii moom yëfi boppam la da koo def yëfi boppam da koo def yëfi ne moom moo fi nekk waaye daa war a eh, ëmb ñi ñëpp loolu nag moom da koo déggoon bi mu doonee wóotaatayu sëñ Fàllu ci liggéey bi lam njëkk a def rek loolu nga wax waa barsàq yi boobu am na ñu des njaareem hmm? waaye daf leen a di taxaw taxawaay bu wér ñu daan jàng fii ci daara kaamil ji mu taxaw leen bu wér a wér mbooleem taal bu sëñ bi taaloon it mu nemmi ko loolu sa jiitu na dem ak sëñ Fall hmm? sëñ Falloo ko woo ne ko fu sëñ Touba amub taal rek na dem ba àgg fa hmm? yaakaar naa ne alxames ci ngoon la daan ñëw julli ajjuma jox sëñ bi liñ ko fi siyaaree lépp ci saako la koy def ñëw jébbal ko sëñ bi bu gaawoo buy dem du amub essence dañ koy lijjanti lu puissance mu demati fa mu war a dem wër a wër a wër ba ba ba ba dëkk bi lépp mat hmm? kon am na loo ko sëñ Fallu doon waajal ci loolu waaye moom it bi mu ñëwee daf koo fekk mu xam ko waaye nag da cee da cee dafa mel ne ku ci aw ay yooni yooni yoon ndax lii ma doon wax léegi ci li ma bind bi fi sëñ bi jóge fukki at ñeent fukki at juróom foofu lay toll waaye ku dégg na digganteem ak sëñ Modou Moussa sanc yi mu sanc yëpp boo ko seetee ci fukki at ak juróom-ñett la ko sanc ay kàbb ay nangam ak yooyu yëpp ci at yu néew waaw dégg kon loolee mu nàmp loolee mu jàngoon ci nekk ci ron Cheikh Moustapha di xool doxalin wu rafet wa looleet bi fi bi fi Cheikh Moustapha jóge it da ko continuer ci sëñ Fall di xool ni muy doxe di xool na mu war a def ak soppi ku jamono luñ ca war a soppi bu ca àggee rek xam na mu koy soppee te du am benn rëng-rëng looloo tax nag bi mu dikkee dafi mel na daal lépp dañ ko ko bindal ci kayit mu jàkkaarloo moom xam ne lii kii daraja ji jii la war a am kii cër bii la war a am kii nii la war a deme kii nii la war a deme gis nga boole waat waa kër Sëñ Tuubaa yépp mag booba ay mag a ngi fi yu bari yu ko fekke ay bindkat yu bokkal ca daara ja sëñ Moussa Alima Guèye gis nga ko sëñ Cheikh Fattako Diop ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mag ñu bari ñoo xam ne ñi dafa mujj ci moom lañ dëkk daanaka duñ fa jóge ak daaru musti ba noppi wut ci mbooleem yoon wi kenn ku nekk représentant boo xam ne bi day mel ne dalaa jële fa nga nekk ñu indi la ci biiram ngir nga wuutu fa fanga nga dëkk mel ne sëñ surtout mu daaru musti gis nga ko gis nga sëñ Abdou Lakaram indi ko ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen waaw yooyu day yoo xam ne yi lu am solo la waaye loolu lépp déggu xilaafa la hmm? xilaafa <coughs> dafa diis hmm? yëpp yan bi day gën a diis ñi lay ñi ñi ñiy sàkku àdduna dañuy ñëw ñiy sàkku yàlla di ñëw ak yow yow li nga war a defaraat nag ndax li nga war a defaraat bis sa day yokk hmm? boo ko fekkutoon ni da xam ne lii dala fi fekk loo war a defaraat la nii la war a demee na meloon hmm, ñeent fukki at ci ginnaaw daa war a soppiku ndax dëkk bi ci moom dafa soppiku waaw loolu nag moo tax waaye li ci jiitu mooy li ko ci yàlla gën a gën a dimbilee mooy ñaari yëf xel mu rafet ak fiit wu dëgër <laughs> dégg nga boo ko ñetteel mooy tabe waaw ndax it tabe nit ñi eh, njariñ rek lañuy wut hmm? nit ko amul njariñ kenn du ko topp hmm? waaye nit ku amul amul xelit doo mën a leeral dara nit ku amulu fitit loo yëkkati buñ ne lee nga daw wàcc ko <laughs> moo tax ñett yooyu ko dimbali ñett yooyu ci la fi mbooleem lim réalisé euh, ci la ko réalisé euh, ba dafa am sa benn xarit bu yàgg boo xam ne dafa tubaabee tubaabee tubaabee ma yàgg ay yàgg na waa quatre-vingt la indi ko ci sëñ bi waaye bi mu ñëwee daal ba jàkkaarloog moom daa doon kat ba daan rek xamul lu muy wax yow ki nga ma indi gaynde la nag di kat kati kat kati waaw gàlday dafa wàccub liggéey waaye nag xame ci sëñ bi keroog loo xam ne lii doy na waar sëñ baa ngi jàmmante moom neex deret lool waaye rek moom daal daa mel na ku gis gaynde ii kii xoolal loxo yi lu ne mu wax sëñ Lahat nekkoon bu doon jamono ñu hmm. fi bàyyi ko sax am na ñoo xam ne sax ay ay chrétien lañ hmm. waaye dañ ci am solo dañuy wax ne hmm. ñaan léeg ñuy wax borom jamono day kii moom borom jamono la ndax bi mu fi nekkee saa yoo jubee Touba da nga defar waat xam na Touba ah, nga jëm sëñ Moustapha Cissé Pire itam di wax di wax ne Euh, même gouvernement bi lépp lu ñu mësaan bëgg a def daañu réunion xalaat lii ñu bëgg a def nu ko si am laxaat di gisee waaw nga xam ne dafa mel ne moom daa nekkoon ci digg bunt bi su état soxlaa taalibe jaar ci moom taalibe yi soxlaa état jaar ci moom. waaye kenn du ko ñaar ci ñoom ñaar. kenn loolu nag nekk lu am am solo loo xam ne bii. ne fi fi kenn ku naan ñeme ngaa dem gisi président hmm? ku ñemee dem gisi ab ministère amul moom kay lépp loolu nag dafa ñemee responsabilité ndax yooyu it mujj ragal ragal goo xam ne gii ragal nga ne boo demee di ko jéem a wut sax fas saasa bala ñu laa tontu danañ ko ko wax nga daal di bàyyi xel nag jataay ba loo fay wuti loo jooju mm, bàyyi xel xam nga li ëpp solo ci nit nit koo xam ne kii lum la war a defal mi ngi la koy defal ba noppi nag am fulay foo war a yem nga yem fa waaw loolu ko mën a dindi waaw nit ki bu la dul defal li mu la war a defal ah yooyu da ngay jàdd waaw loolu loolu da ciy feeñ at mu ne dañ koy gungee ab thème boo xam ne moom la ñuy mooy ànd ak màggal gi mm-hmm. ren nag ñu jëloon mm-hmm. Euh, ñu gis ne yu bare bari dañoo gis ne mi ngi tàmbale wàññiku ndànk-ndànk mbaa ñu ko ciy dindi mel ni bokkut ci yoon wi mm-hmm. te yooyu day fondement ngi yoon wi mm-hmm. te mënut a ñàkk mm-hmm. yooyu nag ngir delloosi ko euh, ak murit am njàng ak taalibe tërbiya ab yar fonk sa kilifa yooyu yëpp euh, war a delsi donte la sax dugg na ci waxtaan wi moom moom <laughs> yëpp duggalaale nga ko <laughs> ñu di ko niitoo ci sëñ Lahat waaye dénkaane boo ci joxee rek ak ak tàggatoo gi ak murid de al muridu man laa yem yamliku shay'an wala yamliku shay'un dafa metti nag hmm? da bari ñu koy woote te xamuñu ko wala ñu koy woote ne moom lañ te doonuñu ko moo tax nag eh, am roy loo xam ne lii boo ko jàkkaarloo moom rek xam ne murid saadi xa ngi nii dafa am solo ci mbir mi hmm? loolu nag yàllaa ngi nuy ci dimbali ba na ba na gëni si mm-hmm. yàllaa ngi nuy dimbali jaar-jaar yi fi aw yëpp ku ci ne rek boo fi toogalee sëñ bi rek da nga xam ne kii day ab murit saadix la kii day sëñ tubaa dong la bàyyi xel sëñ tubaa dong la bëgg ba ci kii fi nekk muy cheikh mahamadul muntaxa ku ko gis rek dafa am loom lay fàttali fi ne day day fàttali nit ñi sëñ abdou lahad sëñ abdou lahad rek la ñuy fàttali waaw man bu moo ko gisee day mel ne moom rek laay gis waaw lool nag dañoo bokk ak bëgg-bëgg ñu bokk ak bëgg bu ko defee muritit li koy yàq li koy jaxase mooy ak tan tanasur ak nasaraan mooy bëgg tubaab ci soxol day tax ak murit day deñ hmm? ndax ñoom ñoo doon xeex loolu boo delloo bëgg leen ak day mel ne kon yow yaa ngi jëm ci seen côté Euh, moo tax thème boobu ngeen wax nañ ko kii bu baax a baax a baax xam naa dafa dama xaw a bett xaw ma woon thème bi kon sax daa ci am lu mu ci bind waaw waaw ma bëggoon a gën a leeral sax sëñ Abdou Lahad ak bokkam yooyu ginnaaw buñ demee ba gisatuñ ko gisatuñ bokkam yooyu euh, nun ñëpp dinoo boole suñ bopp xam ne sëñ Sidi mooy kilifa gi ni sëñ Abdou Lahad doonoon kilifa gi sëñ Sidi moo nekk ci bopp bi moo yilif kër sëñ Saaliw boo demoon ci sëñ Seex loolu la lay wax moo yilif kër sëñ Suwaybu amul lenn lu nuy doxal wala nu di ko bëgg wala nu di ko lijjanti ci lu dul moom mooy suñ kilifa waaye moom it mu nangu ko lool nangul na ko nangoo doon suñ kilifa ndax kilifa kat kenn mënu ko ñàkk bu yàlla àttee nag lañ war a gis ci kilifa lépp nga gis ko ca sa taw feexa ah sante ko yàlla ndax du kilifa yëpp la yàlla di def loolu kon nag ci turu sëñ Cheikh Ahmadou Mbacke mu sëñ Sohaybu ak sëñ mu sëñ Saliou man na maa wax ci seeni i ci seen tur ndax ñoom ñëpp a ngi fii man naa ne sëñ boobu di sëñ Sidi nangul nañ ko kilifteef te moom it nangul noonu ko du du nu umpule nuy duñ ko umpule loolu nag mooy li lum nu digal ñu def ko lum nu tere fas yéene duñ nu tere dara duñ nu séen ci luñ nuy tare waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah jërë jëf mbokk yi kon lii mooy jataay bi nga xam ne moom lañu leen indiloon fii ci kër sëriñ Fallu Mbakke moom sëriñ Souhaïbou di waxtaan wu am solo woo xam ne képp ku maroon bëgg a fàttaliku sëriñ Abdul Ahad ci ay jikkoom ci ay jaar-jaaram ci diggam ak sëriñ Souhaïbou diggam ak bokk yi tabaarakallaahu dégg nga ci loo xam ne mën nga cee jëli bind yu ab solo bokk ci waajtaay yi nga xam ne ñoo ngi leen koy euh, faral di defal ci bu màggal gi jubsee nu ànd ko commission culturelle bi nga xam ne ñoom la ko sëriñ Sidi Mbacke moom sëriñ Abdoul Ahad di liggéeyloo nu ànd ceeg sëriñ Abdoul Ahad Jaxate mi nga xam ne moo ko jiite ak sëriñ Abdoul Ahad Bousso moom sëriñ Thierno Bousso ak sëriñ Abdoul Ahad Jatara moom sëriñ Alhaaji Fàllu Jatara euh, di am mbégte ci euh, jataay bi nag tabaarakallaahu yàlla defal nu ci tawféex nu ànd kooko njabootuk sëriñ Abdul Ahad ñu fekke si jataay bi euh, tabaarakallaahu ñu tudd ci sëriñ xaadimul Moustapha mi nga xam ne euh, ànd naag nun jataay bi di rakk ci sëriñ bi waaye itam di wóllëreem di xaritam yàlla defal nu tawféex it nu ànd kook soxna maam jaara Mbàkke moom sëriñ Abdul Ahad euh, soxna maam jaara xombal moom sëñ Ibra ñaamal nu àndoog jataay bi it ba tey soxna maam soxna jaara Mbàkke Euh, moom sëriñ xalil moom sëriñ Falilu moom itam di doomi sëriñ Abdul Ahad ba tey nu ànd ak jataay bi soxna maam Jaara Mbàkke Caat moom sëriñ Abdul Ahad euh, ñu fekk si tey seen wëllëre seen mbokk soxna Buso mbakke moom sëriñ Falilu mii nga xam ne moonu doon defal waxtaan wi di doomi sëriñ Abdul Ahad loolu di lu rafet loo xam ne euh, dafa couleur jataay bi gën ko jëmmal soxna maam Buso itam nag sonn lool ci jataay bi tabaarakallaahu teel naa tàmbali moom màggal gi a defe ay bernde yu am solo yoo xam ne bokki bu soobee yi moom tabaarakallaahu ñoom itam comme ñoo mbàkkee ay kal lañ dégg naa am yu ñu ciy waxante waaye daal moom mel na ni teel naa tàmbali màggal gi yàlla nañ ci àgg ak jàmm te boo leen lu ñu ci def ci yiw yàlla sunu borom nangul na ko ci baaxu sëriñ Abdou Lahad mi nga xam ne liggéeyal na murid yi liggéey bu rëy rëy boo xam ne la waykat ba doon wax naan si Abdou kum jamonool jëfal na la soo ko gisee soo ko gisul jariñ na la njariñam yooyee nga xam ne yéen murid yi jàmm bëggal leen yu bëggal leen lu baax bëggal leen aw yiw yee leen ci Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne njariñul biir ak loolu bitti lépp ci bopp ci moom la daje fexe ba nit ñi jub tege ci yoon dëkk bi am sécurité ngir ñu mën a dund ci jàmm dund ci njulit gu wóor goo xam ne dañuy talam dañuy mën a jàmm yàlla te tal ko loolu nag li koy def mooy xam-xam ak sécurité ak njub loolu lépp Sëriñ Abdou dimbale ci waa dëkk bi dimbale ci murid yi kon ñëpp ko ameel njukkal bisam boobu nag nuy dëgmal su agsee kenn ku ci ne am nga loo ko war a delloo njukkal te mooy tàmbalee ci ñaanal ko njàngum alxuraan njàngum xasida salaatu ala nabi loo mën ci ay dog yu baax ngir njukkale ko sëriñ Abdou Lahad war na képp ko di murit yëpp la war waaye murit yi nag ñoo ci raw kon noo ngi sant bokk yi fi teewoon yëpp di sant sëriñ bi di ko ñaanal tabaarakallaahu liggéey bi muy liggéey sëriñ Tuubaa ci xam-xam sun borom kàttanal ko ci ba fi mu ko bëgg àggale fépp mu àggale ko fa waxtaan wi tabaarakallaahu am na solo am na ay jàngale yoo am solo yoo xam ne feeñ na ci biir euh, màggal gi nga xam ne nag euh, moom la ñuy waajal war a doon 23 Sawal at mu jot ñu ko bokk yi xamee rek weeru korite ñaar fukki fan yaak ñett mooy màggalu Sëriñ Abdou Lahad incha allah kon yàlla nañ ci àgg jàmm te mboolem lu ci def ci aw yiw sunu borom nangu ko Sëriñ Sidi Mbàkke mi nga xam ne nag moo fi nekkal Sëriñ Abdou Lahad sunu mooy ko kattan ak wér gum mën a àggale liggéey bi muy liggéey Sëriñ yab Lahad